actuellement moom it euh, tey nañ ko euh, Seydou Diouf mi ngi ñëw di salta affaire yi ak yeneen député waaye Amath nag taxaw ci digg émission bi nee na ko yow doo def dara nga ragal lu ma la waaye Amy bi ba nga taxaw fële moom it di ko jox la tey kàddu yoo xam ne ne daal euh, jot mënuñu koo dégg waaye xam naa ne yoo xam ne rek loolu ci mën di am daal li nga xam ne moo waral coow mooy bi ñu distribué enveloppe bi pour waajal li nga xam ne mooy liggéey bi foofu la ne kii Mari ne du fa amee donc fekk nga xam ne mooy distribué enveloppe moom coow li moom la commencé fi may waxee ak yow nag digg hémicycle bi ñu ngi jéem a calmé Abdou Mbow Abdou Mbow mi ngi ci digg duggante mi ngi dugg ci ñi nga xam ne ne mi nga xam naa rek bu ko mënal lu bari waaye daal mi ngi ciy jéem mi ngi koy jéem bi nga xam ne nag maam a fa am agsi na ndax sànq bi nga amee pa amee amee njaay ji ñu waxee maam jaara ne ko dinañ la tontu bam ba sax te loolu léegi-léegi lay doon moo tax actuellement réaction yooyu la am കെട്ടക്കണക്കിന് പറയാൻ എനിക്ക് മഹാറാജ് maa ngi seen gis nga député waa APR yi ki nga xam na ne mooy euh, Yaya Diallo ak euh, ka nga xam ne moo dëkk euh, Mbour ñoom actuellement ñoom ñoo dem di wax ak ki nga xam ne ne mooy Abbas di ko ñaan mu daal jekk ka nga xam ne moom la doon laaleel actuellement yu ñaaw ba tey xëcc nañu pour delloo ko place waaye ka nga xam ne ne moom moom lay joteel ba tey ma ngay wéy di wax jox nañ actuellement nag El Hadj Ndiogou Diène ñoom ñooy joué li nga xam ne ne mooy médiation bi mm-hmm. ndax

moom dafa tànn ci tey mooy Calmet El Hadj Ndiogou Diène waaye jàppal na ne tànn na euh, def les bees yi nga xam ne naa seen tekkaaral gi li Souleymane Niang doon wax sànq naan comme ay élèves CI yi CI yi door a ñëw loolu jeex na bu toll nii moom xam naa ñu ngi tëdd ñoom nga xam ne ne euh, mooy euh, lu leen benn technique boo xam ne ne jóg na mm-hmm. waaye daal jàppal na ne jaxasoo na enveloppe